xam ngeen ni lu loxo def loxo moo koy dindi bi Bassirou Diomaye Faye gañee Sénégal ak léegi doo toog benn waxtu te déggoo coowal suuf ci ay diiwaan yu wuute soi-disant promoteur ak yi nekk ci seen ginnaaw ku nekk ngi gaaw précipité ngir lawal li mu sàcc ci suuf ak di wane ay décret ak ay signature fo ne loolu mooy mën a tax mu jàll juum ngeen ndax lu loxo def loxo moo koy dindi ni ngeen bëgg soppee seen bopp ay millionnaire ak ay milliardaire ci ay kàcc ak ay teg deal ci jël suuf soo xam ni kenn mënu faa dëkk gum ngeen bëgg koo tag dagg ay parcelles bëgg fa créer soi-disant ay cité bëgg ko promouvoir di jaay di lekk xaalis am na promoteur yu seey ci yéen am na ñoo xam ne tey bu ñu dakkalee engagement yu ñu def ñoom ñëpp kaso la jëm waaye ndokk lu wértoo mooti ni kenn du tëdd ci alalu askan wi ñu la ci seetaan bàyyi leen suuf si ci àll bi du suuf soo seen rek danga ko war a dagg jaay ko ay nit te ñi ngi koy jaay duñ ko sax mën a jëfandikoo wante yow yaa koy def xaalis def ci sa poche boo duggee ci triangle bi muy euh, yebaa tooglu nga jàdd suun dugg ci àll bi mel ni lu dëgmal Cees Euh, da sax yéemu ci yàlla ay àll ndànd fay-fay la ay promoteur yoo xam ni amuñu benn base du xaalis du entreprise du dara dagg ko ay parcelle ba mu jeex foo xam ne aw ñuul la woon ay xeer dong nga fa nekk def nañ ko ay parcelle am na sax ñoo xam ni dañuy miine àll bi comme carrière ngir mën a wàññi doj yi ngir mën ko def ay parcelle di ko jaay yooyu nag dafay dakk liggéeyoo xëyoo gonto di mbubboo promoteur fekk ay baykat yu bay ci suuf nga indi leen kayit naan leen décret la fekk ay baykat yu nekk ci suuf nga ànd ak ay gendarme même loolu sax war na changé diggante préfet yi su préfet yi balaa ñu demandé ti ci commandant yi ñuy def intervention di wàcc di protéger ay soi-disant promoteurs war nañu xoolaat ban avantage la askan wi ñuy jël seen suuf am ci suuf soosu ñuy jël parce que intérêt benn nit buy dagg ay parcelle di jaay lu kenn dëkkagul te xamuñu ñu koy jaay bàyyi suuf si yëpp mënuñ ko def ay kër te ñu soxla ay tool te ñu soxla ay espace yu ñuy def yu ñuy defee euh, agro business ñu soxla espace yu ñuy defee élevage ñu soxla espace yu ñuy tabax ay baaj ngir def euh, pisciculture wala aquaculture yéen daal benn connaissance rek ngeen am ci suuf dagg parcelle ndax benn moodu moodu triande benn faatu faatu lekk xaalisam jaay ko parcelle boo xamante ne bi inhabitable balaa mu fay dëkk dina fa def lu jógee dix millions balaa mu fay dëkk dong ci gas suuf si ak génne xeer yi dana fa def lu ëpp dix millions loolu sax garaawul mais njublan gi da ngay gis ni diggante dimanche ak léegi foo ëlbatiku dégg coow suuf ñu précipité di daw di jëkkante ngir tàqalikook li nekk ci seen loxo ah oui c'est raisonnable parce que temps wu Abdoulaye Wade bi mu daanoo ay promoteurs yu takku ñoo seey mes kenn gisatu leen am ñoo xam ne ci la ñu jógee ndóol ba faw kenn déggatu leen noonu itam lay demee ci bi kon na ngeen am ful la yéen béykat yi bu kenn eggale la mu entamé woon ci wàllu suuf ci seen ay localité def leen leen face kenn benn autorité dootul yebal ay gendarme pour ñu leen di tiital ak di leen intimider ak di euh, leen mettre pression pour ngeen bàyyi seen suuf kenn ëppul kenn sañ-sañ ci suuf si Sénégal bépp bokk fekk tool bu ñuy bay ay téeméeri téeméeri nit di fa liggéey nga ñëw nangu ko ndax da nga am décret da nga koy parcelle di jaay benn benn def ci sa poche mel ni yaa gën a yay nit ñi ci suufu Sénégal yooyu dana dakk def leen face soit disant promoteur yi triande seen ay suuf suuf si dañ ko soxla ngir nekkin bu sell te lépp na changer incha allah